jërë ngeen jëf yéen suñu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax amaat nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak kilifa yi yëpp nga xam ne saa su nekk. ñu ngi leen di dalal fii ci site bi di 221 people tey nag euh, ñu fas yéene dalalaat beneen kàngam di kilifa nga xam ne fii ci site bi moom du fi gan ndax euh, def nañu émission du ma juumu tey mooy suñu ñaareelu émission ñu koy tuddee Cheikh Moustapha Diouf tey nag ñu war a waxtaane ci lépp loo xam ne bokk na ci li nga xam ne yàlla sédd na ko mu ciy yëngatu di ci dimbale jaamu yàlla saa su nekk euh, Cheikh Moustapha damay bàyyi nga nuyoo mbokku internet bu 221 people. waaw auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alladi lawlaahu lan nakunu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya ba'dahu wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi ddin salaamaaleykum wa rahmatullah eh, maa ngi nuyu yéen waa eh, deux cent vingt et un people di leen tatagal di leen wax bismillah ñu leen déglu d'accord jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Moustapha Diouf ñu ngi lay fay bu baax a baax euh, ci sa nuyoo yooyu. Hmm. am nañ ci kontaan dañ bégte bu baax a baax. acca ñu ne coow nag euh, fexe dugg ci suñu émission. Hmm. yaatal mu neex comme ni ñu ko waxee saa su nekk acca. Hmm. dama dellusiwaat ci li olof Njaay di naan seet ndax seet moom. mën naa ne saa su nekk nit ñi daa mel bëgg nañ ko saa bu ñuy ñaan la ci sëriñ dañuy bëgg ñu seetal leen. Hmm. seet laa bëgg ñu dellusiwaat ak ni Cheikh Moustapha Diop di seete. ba nit ñi hmm. am yaakaar ci moom bu baax a hmm. baax a baax. Euh, nga seet lan mooy seet. ak li nekk ci biir. ba nit yaakaar saa su nekk lay seet si pour nga seetal leen. Euh, comme ni ma ko waxoon émission bay passé rek xam nga seet moom nekk na loo xamante ni tey maanaam nit ñu bëri ñu ngi ko teg foo xam ne sax xëy na mën nañu wax ni yeggu fa waaye nag ci beneen ko tamit yegg na fa parce que doomu aadama bu nekk ci lépp loo xamante ni yaa ngi ciy dugg war nga koo mën a seetlu bu fekkee da ngay jënd kër war ngaa mën a xool kër gi ngay jënd ndax yow baax na ci yow même su fekkee da ngay jënd jur sax rek la wax ni jur bi na nga ko seetlu su fekkee dangay takk soxna na nga ko xool ba xam ndax yéen ñaar seen biddiw yu ànd na wala àndul am na nag ñoo xamante ni gëmuñ loolu waaw dañoom jigéen suñ ko bëggee mu bëgg leen rek jeex na jëruñu xol bi di am ñoo xam ne gëmuñ loolu mhm. waaye nag cosaan la aada boo xamante nii dañoo fekk suñu mag yi di ko def suñu yenn kilifa yi di ko def kon tamit ñu fekk loolu di roy lu mel loolu ma xamal ne daal seet ñun am nañ ci ay façon yu bëree bëree bëri bëri yu demee ni ramlu dañ koy def ramlu nag boo ko xamul mooy am na ñoo xamante ni suuf la ñuy jël rek def ay tomb waaye tomb yooyu noonu mooy mbir mi am na ñoo xamante la ñuy jël def bind seen bind tomb yooyu tamit tomb tomb yooyu même mbiri comme ni ma ko waxee keroog man tamit damay seet ci kurus yu ci ëpp nag ci kurus lay seetee damay seet ci kurus damay def istixaara waaye doomu aadama bi daal ak lépp lu muy dugg. Mhm. su buggee li muy dugg noonu mu am ci résultat boo xamante ni bu aw yoon lay nekk. Mhm. il faut mu seetlu ko bu ko seetloo ba ñu wax ko ci lu leer. waaye seetlu bi nag bu su li ma koy conseil ki nga xamante moo koy def su du wàllu soxna da ngay dugg ci ay ñaari sëriñ wala ñetti sëriñ. bu fekkee am na si ñaar wala ñett yoo xamante ñoo méngoo luñ la wax defal liñ la wax nga bàyyi kenn ku lu mu la wax su ko defee boo si diggee da si am waaye seddaal lu am njëriñ la ñu nag wax dëgg yàlla moom am nañ ci ay kilaan yu bëri yoo xamante si loolu sax la ñu gëmee mm-hmm. dañuy oo wax ñu seetal leen ñu seetal leen wax leen ci loo xam seen mbir yoo xamante ni dara du ci deñ kon loolu ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah am na solo jërëjëf ci seet boobu laay des sax ba mën laa laaj benn laaj. Hmm. ndax li jëm ci réew mi bëgg naa nga dellusiwaat ci comme que seetkat nga. te ñu hmm. bëri seede nañ ko. Hmm. Euh, réew mi ni muy doxee ak ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk. di doxal ak ñi yaakaar pour doxal. lan nga ci gis. Ah. waaw waaw loolu moom dama ci sawar bu baax a baax parce que man damay faral di wax ne rek duma wax lenn loo xamante ni xaw ma ko du ma wax tamit lenn loo xamante ni dama koy lambaatu li ma ciy wax wax ju gàtt lay nekk rek pour maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan ñu baay suñu xel xool li nga xamante ni mooy nekk suñ kanam parce que ki nga xamante ni moo mel ni Ousmane Sonko gars yu bëri ñu ngi yaakaar ne maanaam élection bu ñëwee mun naa mun naa jël réew mi. comme ça waaw ñu bëri yaakaar nañ loolu. Mm-hmm. ñu bëri yaakaar nañ ko. te danañ ci am mu faaja mu faaja mooy mooy mbetteel parce que instant bi Ousmane Sonko si boppam moom instant bi nii moom pare na moom si boppam pare na pour jël réew mi mais dafa am loo xamante moom moo ko gàllankoor. te lool si boppam nag il faut mu doon loo xamante mu dem seeti ñoo xamante ni ñu lañ ñu mën a raxas yaramam ba mu seet pour mën a jëkkuroo mën ko jël wa ilaa hmm. wallahi li si jël pareegu pour jël ko léegi hmm? loolu koy maa la ko wax gàllankoor yan la doon ko koy waaw gàllankoor xam nga xam nga àdduna bi hmm. maanaam su demee ni maanaam mbiram état doon na loo xamante ni du lépp lañ mën a wax parce que bëri na ay def def yu nekk ci biir bari na ay yoo xamante ni lépp ñu ngi ci biir lépp kenn mënu koo wax mhm. waaral li ñu koy conseil mooy lan su fekkee ne bëgg na toog ci bépp bopp réew bi mhm. na dem mu xoolaat boppam mu raxasaat yaramam mhm. pour mën mu mën a yërëm su dul loolu tamit ko ko léegi daal maanaam seeti sëriñ si daal ñu def seeti sëriñ si wala ñoom moomu seeti moom moom ñoom la yaakaar ñu dem ñu defal ko ñaan pour mu mën a cëram ko ilaaj cëgu su fekkee defu ko moom gisoo ko déedéet déedéet su fekkee defu ko gisaguma ko baax na dina dina jot ci message Kafountine li koy bàyyi xel bëri na du dina ci jot di ci jotut ay ñooñam di ko jéem a jotale pour mu dégg ko jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Moustapha Diouf am na solo ci ponk boobu ñu nekkoon nga ciy leeral mm-hmm. aja damay ñëw yaatal dugg ci beneen ponk mm-hmm. mooy bi olof jaay di naan nopp mm-hmm. nopp nag dama koy dégg mais xamuma lan la te ñu bëri ñu ngi laajte pour nga leeral lan mooy nopp ak lan moo nekk ci nopp lu tax nit ak nit di seqi tànk di nopp morom ma pour lan la waaw mbiram noob moom alhamdulilah loolu li ma ci waxoon yaakaar naa ne moom laa ci waxaare waxoon naa émission bi passé ma ne leen noob moo gën a yomb man ci li may def man dama jàpp ne noob sax du liggéeyu sëriñ man loolu laa jàpp ah, parce que ñun jamono bu ñuy nekk si daara ji jamono bu ñuy nekk ay xale di jànganto asraar si la ñuy jàng la mooy noob nga xamante da ngay bëgg nit ki sa xar dafay bëgg nit mu ñëw wax la ko nga am foo jaar moom mu takk ko wala nga am foo jaar ak moom mu nekk moom parce que yu si bëri xam ay si bëri sax dugg par affaire jabar parce que man fa yi passé nii rek am na benn client bu ma oo mu ma oo Amérique daf ma oo direct appel mhm. bi ma oo ne ma dama seetaan sa émission ngay wax ci mbiram noob am solo ma am ci yow yaakaar bëgg nga noobal ma ma laaj ko turam laaj ki mi bëgg a ma mais tamit dama waxoon tamit képp ku may noobal dinaa la laaj ba xam ki ngay nooblu lan nga ko bëgg mhm. soxna nga ko bëgg wala ilaa moom tamit mu nekk ni ku dëgg wax dëgg la mu ne ma bëgguma ko soxna mhm. dama ko bëgg a noom nii rek nekk ak moom nii mën a ko. nit ku ñuul la woon wala nit ku. nit ku ñuul la. Ah. nit ku ñuul la ku ku jigéen ki nit ku ñuul la ku weex ku nit ku ñuul la waaye tamit bi ma ko waxee man tamit mën a ko loolu moom wax dëgg du ma ko def. parce que ñun moom wax dëgg yàlla liggéey bi bëgg nañ ci lépp luñ ciy seq ak nit. Mm-hmm. da nekk loo xamante ni tey dañ ciy xool suñu diggante ak suñu borom. parce que tamit xaalis neex na lu nekk neex na waaye nga xool si xaq bi nga xamante ni moo jaas diggante ak sa borom. Mm-hmm. parce que man li may faral di wax chaque jour rek maanaam réussite ci sëriñ du kër yu bëri du oto yu bëri du am xaalis bu bëri bi mais nga am mooy nga nga am ci taq wala nga ragal yàlla ci li ngay def mhm. nga am nga bañ a am fenn tamit sans frontière fépp foo bëgg a dem nga dem fa fu ñu la oo nga uyu fa mhm. te am na sëriñ su bëri tey mhm. ñu ngi nekk si télé di nga ngawi

ñun nu ñu noobee mooy dañuy jël sa tur ñun. Mhm. parce que ñun rakkum rakkun xakim noobee. Mhm. rakkun xakim képp koo xamante yaa ngi. wàll ngay jël kii nooblu. voilà dox si mbiram asrar mhm. xam nga lan mooy xaatim rakkun xakim mu rabba alamin tuddee ko rakkun xakim. waaw am na nag damay dugg nag si des fois ci émission yi wala yenn YouTube YouTube yoo xamante ni may gis gars yi di ko di ko di dañu def erreur. dañuy def erreur si ni ñu koy waxee parce que rakkun xakim dafa am muraba am. maanaam erreur bi la ñoom ñaar waaw xam nga xam nga tey. Mhm. rakkun xakim si boppam. Mhm. xaatim muraba la. léegi muraba boobu noonu moom lañ jël tuddee ko rakkun xakim parce que tey moom mbiram nopp moo ko tax a jóg. Mhm. noot nit ki ba lépp loo ko wax mu def ko. bu dee kenn nit la sax mu bëgg a nopp ay noor ay mbooloo ñoom ñëpp lay jël mu jël seen tur dugal ko loolu dafay dafay laaj ci boppam nga am seen tur am seen turu yi boole am am benn as benn ci asmaa allah alxusna yi nga am ci benn boole koog benn malaaka boole koog tamit benn xaaj benn benn benn aaya alquran boo xamante ni tey dafay méngoo ak ñoom luñ bëgg nga def ko loolu soo ko defee nga jaarale ko fi nga ko war a jaar mënoo toog une semaine te li nga bëgg amul kon xam ne loolu dafa am yoon mm-hmm. waaw kullu kullu kullu kullu shay lahul baab mbir moo gis dafa am yoon mais soo tegee yoon ba rek mm-hmm. mooy waral nga liggéeyal nit mu toog ay fan gisu ko mu waral nga ma ne li gisuma ko fekk noob am na waaye yow mu ko def da nga xamul si ban buntu nga ko war a jaaree mhm. waaye ñun ci kàttanu yàlla boo ñu ko defee bañ jëflante ak yow mhm. une semaine lañ la may ko am ci ñu koy woowee kaaraange ñu bi nga liggéey waaw mhm. kaaraange li ma la ci waxoon keroog dañ ci sant yàlla bu baax a baax parce que man damay liggéey ci alquran damay liggéey tam ci sunguf ak reen damay liggéey si alxuraan damay lungu ci sunguf ak reen parce que alxuraan bi wax naa la ñun dañ koy jànge mhm. tarbi ko jàng ko am xam ci liñ ci xam sunguf bi nag moom dafay dañoo ñëw donn ko suñu waajur bi nga xamante moom ñu jur ku nekk xam na ko ci mbiram sunguf mhm. ak mbiram reen ak mbiram takk takk poqe takk xànc fas takk ñu ñëpp xam nañ ko ci. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ni lu lu lu lu ci da cee aay. Mm. ñu ñëw doon ko ci loolu sama mbokki xalpulaar yi ñoo ko moom muy pël. xam nga xam-xam moom. Mm. xam-xam mm. amul alpulaar amul séeréer amul tukulu am xam-xam mais fas ñoo ci gën a taxaw quoi. xam-xam xam la rek. Ah. xam-xam xam-xam parce que ñooñ mm-hmm. juddu ñu rek ñu sol leen xam-xam yi. parce que xam-xam am na boo doon am na boo xamante da nga def itti dem xami ko mm-hmm. ki doon a def iti dama xame ko ñoom ñaan ñëpp bu sellalee mën nañu toll la xam-xam bi waaye ñun ci kàttanu yàlla boo ñëwee mhm. su fekkee da ngaa bëgg a taxsin ñun taxsin arab taxsin la eh, am ko wax taxsin am ñu ko xam dana difaaya mhm. mooy loo xamante mën na la aar su ko defee mën nañ am na yoo xamante ni koy def mhm. jox la ko nga sangoo ko boo ko sangoowee képp koo xamante ni def nga ci yow def na ci yow muy ab liggéey liggéey ba dafay dellu ci moom ci lu gaaw sax dafay dellu ci moom di ko yërëm waaw parce que am na benn téere boo xamante sax téere bi fii lañ koy takk bu dee góor fii la koy takk bu dee jigéen mu takku si benn tànk bi téere boobu noonu ko takkee képp koo xamante ni dem na ci maara di la liggéeylu hmm. yow dana moom dina nga dëgg si tànk sa tànk boobu nga dëgg si bàmmeelam loolu secret yu wér a wér la amul sax bu dee nag ci wàllu sunguf hmm. nga ñëw ñu jox la sunguf yoo xamante ni boo ko sangofee képp ku liggéey hmm. dana dof wala dana dee waaye nag yow mi nga xamante ni yaa ko sangoo tam doo def lu bon kenn doo ko wax lu bon kenn waaw da ngay toog nga sangoo nga toog nga téye sa bopp Mm-hmm. waaw doo def dara nit lu bon waaye lépp lu nit def. incha allah dana tourné ci kaw ci kawam. acca mu ngoog mm-hmm. jërëjëf acca foofu laay ko dugg ci beneen question gannaaw kaaraange. Mm-hmm. war na ñoo mën a fàggu lii di ubbeeku. ba xam ne doo amee protection rek lu ñëw dina mën a nekk ci yow. ubbeeku ñëw ci ubbeeku bi nga liggéey. waaw ubbeeku nee bu ànd ak uh, koom-koom la ñu soxla de. waaw <laughs> bu ànd koom-koom man ubbeeku bu ma yore. <laughs> dafay ànd dafay ànd dafay da ngay ubbeeku ba pare dangay am bayre nit ñi dañ lay bëgg yaa ngi dégg day dafay tax taxsin tamit parce que xam nga ubbeeku boo xamante ni am nga alal ju am nga alal junne gàññi yaa ngi dégg siiw nga nit ñi xam ne te yow aaroo sa bopp loolu amul benn njëriñ su ko defee cat moo lay muy topp rek te cat ku nekk xam na ne baaxul làmmeñ la ak ak ak ak te képp koo xamante ni daan la sa kaw te amoo loo musluwaaye mhm. dana la faagagal te loolu ñu ngi ciy muslu yàlla moo tax li may conseil nit ñi mooy képp koo xamante ni dem nga ci nit ne ko damaa bëgg nga liggéeyal ma ubbeeku mhm. am bayre na ci boole waale lu la lu la aar parce que loolu moom moo lay musal parce que tey bëri na ñoo xamante ni ñu ngi bëree bëri am nañ lu du jeex wallaahi alazim wéruñ wéruñ seen mbokk yi liggéey nañu leen ba ñuy bëgg a dee wala seen ñoo xamante ni seen i noonu parce que tey say mbokk yi ñoom ñoo lay def loo doomu aadama bu nekk ay mbokkam sax ñoo ko gën a ñeme. ñoo la gën a ñeme. a te da am feebar te mu leer na feebar bii nii nii nii soo demee ci seen di lax ne feebar bi say mbokk la ko def parce nit ki koo xamul doo ko ñeme parce xamoo lu ñu ko bootee xamoo kii moom mooy kan mm-hmm. kooku amoo sañ-sañ dem ci sëriñ di ko def lenn ki nga xamante ni xam nga ko jege koo nga ñeme koo nga mën def ne mm-hmm. ah. waat loolu lu koy maye nag mooy xam-xam yaa ngi fi secret ñu ngi fi seeti leen ñi ngeen xamante ni am ngeen ñoom yaakaar ak ku mënta doon. ñu defal leen ko ngeen mucc. wër nga waaw loolu mooy loolu mooy. lu wër la moom hmm. seet ki nga xam ne yaakaar nga. yaakaar la ay ñaan. Hmm. Hmm. loolu lu wër la jërëjëf. acca damay dem ci beneen ponk mu di euh, tawat. tawat yi nga xam ne saa su nekk mu ngi dellusi ci ñun. lu ci mel ni hémorroïde sonal la nit ñi de hémorroïde. waa hémorroïde waxoon naa ko keroog sama émission bi passé ba am na sax ñoo xamante ni jëflante na ak ñoom ñoo xamante ni jot nañ seen bagage sept jours laa la waxoon avant sept jours yi alhamdulilah yàlla defal leen tawfiq am na nag ñoo xamante ni seen bagage ñu ngi si yoon àggaguñ kon kooku ñooñu mënuñoo wax si ñoom ñu bi ñu mën a am ci loolu lañ mën a wax parce que lu ñuy faral di wax rek lépp lu ñuy liggéey lépp lu ñuy wax day fekk mu nekk wax joo xamante wax ju dëgg lay nekk parce que tamit mhm. ñi nga xamante ni dañuy jëflante ak ñoom dañuy seetaan dañuy seetaan mhm. te buñ paree tamit dañuy kon moo tax lépp looy wax rek na nekk loo xamante ni dëgg la parce que émori seex bi mm. nekk na mbir moo xamante ni tey wallahi al azim su la jàppee te bàyyiwul la mun naa dem sax ba jural la feebaru sexuel ba nga new kattan soxna dootu ci man dara kon hémorroïde maanaam képp koo xamante ni am nga ko rek mm. li ma lay conseil mooy nga gaaw faj ko ñun nag li ma la ci waxoon rek ay reen lañ ci yore ak ay xas ak sunguf sunguf bi nag lu tuuti la dañ la koy jox wax la heure yoo ak noo koy naanee mm-hmm. nga nga nga jëfee ko comme ni la ko waxee ci kàttu ñëw yàlla dana la may tawfiq daal. waaw ñu ngi siy liggéey ak nit ñi alhamdulilah te ñu si defal ñëpp sant sant nañ yàlla bu baax a baax. xam nga émission bi nag moo nekk loo xamante su fekkoon sax nit ñi dañu mën dugg di seede. Mm-hmm. boobaa ngay xam ne kii ni li muy wax ni am na njëriñ parce ñi ñu koy defal ñoo ñuy oo te nañu xamante nañu wax benn affaire maanaam fii nii kenn mëntu ndax kenn. Mhm. parce que nit ñi su fekkee dañu liggéey ñu ñu am ci résultat. Mhm. danañ la oo wax na ne la liñ ñu defal ni gis nañ ko waaye bu ñu gis tamit moomoo leen parce que dañ la fay sa mhm. wax ne liñ la wax ni liñ la defal ni gisoo ko. kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ba alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax sax. am na solo jërëjëf euh, Cheikh Moustapha Diouf acca xam naa jigéen ñi moom dinañ ne sëñ Cheikh dañoo beral loxo mais. Euh, mënta ñàkk ndax ñoom il faut ñuy am tawfiix ñoom seen xol daa war di sedd euh, mu di jigéen ñi nga xam ne euh, dañu të am doom mais nag duñ ko xal di jiñ jigéen ñi kese de am na mm. góor ñoo xam ne pour ñu am doom problème la mm. nga leen di wax faju jël ñu yaakaar ne ko jigéen ki moo war a faju ñu ñëw jigéen ñi nga xam ne dañoo të am ñi tee am ñi nga xamante ne ñoo yéex am doom lay wax ah. loolu li ma ci waxoon keroog yaakaar naa ne leer na loolu su amee mm-hmm. dañuy xool li ñu njëkk a wax mooy dañuy wax ku jigéen ki ne ko demal hôpital mu doom hôpital xool ba xam lan moo ko tere am doom su fekkee waa hôpital trouvé nañ ne lii moo ko tere am doom mm-hmm. boobaa nañ ko bàyyi mu continuer traitement hôpital ba xam ndax ñoom mën nañ koo faj wala mënuñ koo faj mm-hmm. boobaa ko gi tamit dafay dem parce que mënoo nekk ak jigéen tamit nga nekk moom lu yàgg amul doom rek nga jël mbir xëpp ko jigéen ki ne yow la yow la te nekk sax yow ko góor ki waaye su fekkee ne jigéen kii la boobaa danañ ko xool ci ñaari anam mm-hmm. danañ ba xam ndax feebar boo xamante ni hôpital mënu si dara ñun ñoo ci mën dara wala tamit loo xamante ni mbiram rab la ak lu mu ci mënta nekk si ñaari yooyu noonu suñu cherché ñun bu ñu ak moom ñaari weer laa la waxoon te mu laa lay wax ba tey ñaari weer mm-hmm. da nga danañu oo téléphone ne kii nga ki nga nii yàlla may na ko am na mu si jàmm alhamdulilah loolu amul sax liñ ciy werante parce que secret bi ma lay wax ni secret bu wér a wér la man maa seeti benn kilifa mm-hmm. ma dem jaayante ak moom mu igti kaamil al quran jox ma mm-hmm. yaa ngi dégg ma lii jaayante naa ko da jarul sax ñu koy wax parce que am na yoo xam ne tëgg sa bopp lay nekk moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm mhm. parce nekk mu ngi may bàyyi xel mu ngi may oo di ma ñaanal ay njabootam ñu yaakaar naa ne kaamil bi ma jox noonu mooy daf ma war a ma wax rek ne ma nii nga war a mel li kaamil bi da nga war a jub lépp nga teg ko ci dëgg man loolu laa ko moo tax maa ngi ko sant ko gërëm mu am lu mu ñu ci déy ba tax na secret moom moo la ñuy ligg alhamdulilah buñ demee nag ba nga xamante ni jéem nañ def nañ ba liñ ci mënoon nga xamante ni ko ci dañuy dem tamit xooli ñeneen parce que fawqa kullu zil ilmin alimin xam-xam boo gis xam-xam sut na ko mhm. waaw bul taxaw rek ne man di bàkku man maa man li man maam li te am na ñoo xamante xam nga xam-xam mhm. xam mu ngi nekk si dënn góor yàlla mhm. xam-xam du daraaju rëy ji ngay sol xam-xam du mbaxana mi du course gi ngay yore yaa may dégg xam-xam lu si si si dëmm dënd góor yàlla la nekk. Mm-hmm. mais nag ñun wala yenn taalibe yi nga xamante ne dañu dem seeti sëriñ. Mm-hmm. ñoom si kiñ gën a mën a dem. Mm-hmm. moo ci nga xamante ni sol na dara. dara joo xamante ni fees na kii bi yëpp. sëriñ bi loolu du xam-xam nit ñi il faut ñu yeew. il faut ñu yeew am na ñoo xamante ni benn aaya alquran la ñu yore. faatixatul kitaab la ñuy yoro soxla boo munta am boo duggoon kaso boo waroon am doom boo buggee musluwaay soxla boo mun munta am si loolu lañ lay yow ñu fajal la ko si ay alxuraan laa la wax kese mhm. loolu mooy ijaaba mhm. moo dañoo liggéeyal seen borom ba am ijaaba si li ñuy liggéey gaa yi dañuy jaawalante ijaaba mhm. ijaaba dañ koy jaawale ak wilaaya ak xabul ila ijaaba ak wilaaya nag mën nañu wax ne ñoom ñaar seex lañ rek waaye xabul moom ku xam dara dana ko am ku xamul dara dana ko am nit danañ fees buntu këram ñaata nit nga fi déggoon te ñuy oote di naan ay ñu la wax borom jinne yi dañuy faj ay jinne da nga déggati leen parce que lépp loo xamante dafa nekk ngir yàlla dafay continuer waaye lépp loo xamante du pour yàlla wallahi alazim dafay dafay dafay dagg loolu ay alxuraan bu leer nañ la mhm. kon ñun ñu ngi sant bu baax baax ba fi ñu teg suñu tànk tey amul lenn loo xamante moo tax ñu changé du xam du alal mhm. du connaissance du dara ñu ci sant yàlla bu baax a baax. tarkalla loolay xam-xam te xam-xam yaatu na ni koy olof Njaay di waxee rek. Mm. ren lu mu xóot xóot am na bu ko gën a xóot. aja dama mm. ñëw ci xat-xati jamono yi nga xam ne bëri na. Mm. ñu bëri leen di làq leen di denc jant bi mu di mbirum prison. Euh, amal loo ci laay biir am loo ci baaxee ñenn ñi waay. waaw loolu li ma ciy wax moom. Mm-hmm. loolu li ma ciy wax man daf man mi nga xamante ni man maa koy wax man maa ko dund. man maa ko dund parce que man dama amoon mbokk boo xamante ni caabi da ko fetoon ginnaaw li ma la wax nii jamonoy corona bi deux mois yu yi xaw ma trois mois yu njëkk yi. Mm-hmm. gàmm bi gii lañ ko jàppoon. gàmm gii may wax nii. Mm-hmm. moom lañ ko jàpp bi nga koy jàppee. Mm-hmm. ñu ñu ma wax ma ko. man tam ma def li ma ci xam li ma ci man dem waxtaan ak sama papa wax ko ko mu def li mu ci xam ma ne ko kooku wallahi lazi laa ilaha illa huwa un mois tëdd ko si kaso dafa génn. un mois laa la wax tëdd ko si kaso dafa génn. loolu exemple laa ko jël suma bopp. da a def wala da ngeen a def ba jox ko mu lekk wala mu naan non mu ngi Gàmbi jamonoy corona la kenn mënu faa dem. kenn mënu faa dem benn affaire lañ def suul ko ci digg kër gi nga xam ne fa la nekk ak ci néeg bi lu leen def marut sax un mois ñu oñe nañ bàyyi nañ ko. waaw. te su fekkee ne lu li di laam-laame la ku ma seet si mën naa laa boole moom nga laaj ko lay sa xabar ka ayaan wélu gis bokku sa ñun ñoo liggéey lu mel noonu ñu ci mhm. que yàlla bëgg yàlla yàlla bëgg mhm. ni ñun kese ñoo ko man bëri na ñu ko man mhm. waaye ku ñu seet ku si seet seet si ñun pour ñu fajal la sa soxla boobu noonu lépp luñ ci mën danañ ko def te insha allah dañ si gis temps ba ni may waxee yow nii sax am nañu nekk bitim réew ñoo xam ne caadri naa féetoo ginnaaw man am naa fa benn cas boo xamante ni génn naa fa benn waaye bu nekk Italie. Mhm. dama koy faral di wax chaque jour parce que man maa ko liggéey. man maa liggéey ci kàttanu yàlla man maa liggéey. waaw loolu dama ci sant bu baax a baax. Mhm. ba li ma lay wax gis nga femme boobu noonu noonu fu ma mënta nekk ci Dakar daf may au téléphone lii teraanga dana ma ko indil. ci loolu kese lañ si loolu kese lañ seq man ak moom loolu ñu ngi ci sant yàlla baax a baax. jërëjëf tawfiq la jërëjëf euh, Cheikh Moustapha Diouf am nañu kontaan ak ci dalal bi. Hmm. xam naa am loo tàggatoo du na loo baax ñi nga xam ne ñu ngi lay ci site hmm. bi waaw li ma ci li ma ci li may tàggatoo moom daanaka lu lu lu ndaw la rek di conseil ñi nga xamante ni tey. Hmm. muy sëriñ si nga xamante ñu yëngu si wàllu asrar képp ko xamante ni mënoo mbiram xaatim mënoo si dara mhm. ngir lillaahi wa a bàyyil xaat bàyyi leen xaatim yi ngeen di dagg di ko damm mhm. di ko jox nit ñi ni koy sangoo di tëju mhm. parce que xaatim bu damm boo ko tëj boo ko da ngay tëju da ngay tëju rab dara dootoo ko mën a am ñaari tam sunguf yi nga xamante ni sunguf yi nga xamante ni ñi dañ koy sango tamit sunguf dafa am yoon parce que sunguf dafa am yoon parce que sunguf bu nekk ah. dafa am heure boo ko war a uut dafa am jour yoo ko war a uut xam nga tey ki nga xamante dafa bëgg sunguf ci bayre mhm. sunguf ci si taxsin mhm. sunguf ci fatxu bu ci nekk am na heure boo xamante moom nga war a ut sunguf ba mhm. ak soo koy ut li ngay jàng même sunguf bi ngay ut bu fekkee da nga koy dëbblu ki la koy dëbbaay ban jigéen la war a nekk parce que nekkul même parce que jigéen moo war a dëbb sunguf bu noonu am na sunguf yoo xamante ni jigéen bu xam góor du ko dëbb xale bu ndaw koo xamante ni leeral na kii xamut góor moom moo koy dëbb te loolu yëpp ay reen yaa ngi dégg su fekkee xam-xam boo xamante ne dafa làqu mhm. su fekkee nag yow gis nga rek sunguf sunguf xamoonu sunguf demee euh, doguma la euh, Cheikh Moustapha kon sunguf mën naa tëj nit sunguf mhm. mën naa tëj nit comme xaatim ni muy tëjee nit ah, lépp loo gis rek mhm. soo ko defee contraire aksi ba mën na laa mën na laa tëj mais nag su ko defee yow mi nga xamante ni yaa koy def na doon loo xamante ni lu xam loo xam la te tamit sëriñ si buñ di rëy parce que dama mos a sànn benn vidéo Euh, suma suma mbokk suñu mbokku taalibe la. Mhm. mu ngi dëkk Touba yaakaar naa suma juumal ñu laaj ko benn question ci benn émission wallahi lazim direct ñëpp di ko seetaan bi ko waajee laajee question mu ne ko xaw ma ko. waa ji ne ko di ko layal ne ko xam naa da ko dégg mu ne ko dégg naa ko dama ko xamul loolu mooy maandu loolu mooy ku dëggu nit bu ne loo xamul ne la xaw ko. Mhm. dafa tere nit ñàkk koo xam. su ma la loo xamul ne la xaw ma ko ñu dem ci ko xam mu liggéey ko mu def ko mais yaakaar nañ ne bu ñu laajee luñ mën luñ xamul suñ ko waxee duñ tuural suñu bopp tuural suñu bopp nit soo bu fekkee dangay liggéey liggéey bi jaar da ngay wax li nga man mhm. nga wax li nga xam après nga noppi waaw mhm. parce que mënoo xam lépp mhm. mais li nga xam daal li nga man wax ko la ci fekk nga defal ko mu am si résultat nga xamante ni tëli foo tëddee foo tëddee di nga nelaw ci maa ngi ci sant yàlla alhamdulilah léegi nag suma suma suma dernier xam naa kàddu mooy maa ngi sant maa ngi di sant yéen di leen gërëm tamit di sant tamit suma taalibe yi nga xam ne wax dëgg yàlla fu ñu nekk ñu ngi may oo di ma nemmeeku parce que tamit kóllëre kóllëre dafa am solo da nga liggéey ak nit defal ko teraanga yaa ma dégg fajal ko soxlaam mhm. te du la fàtte fu mu toll mu lay oo di la nemmeeku waaye nag loolu yëpp xëy na tamit ci man la mhm. parce que su fekkoon dañoo ñëw ma jafe leen liggéey bi wala ñu may om bañ naa jël wala ma am ñu ma liggéey ak ñoom konoon teraanga yi ñu ma ko delloo kon man loolu laa gëm si diggante sëriñ ak taalibe yow mënoo wax ne saa soxlaa taalibe bi nga am ko moom bu la soxlaa du la gis loolu sëriñ mhm. koo kooku mën def ba ko nga dem seeti keneen parce que sëriñ si bëri nañ fi mhm. waaw bu man rek nekk keneen bu keneen nekk man waaw en tout daal fexeel képp ku dem di ko jox sa xaalis mhm. na la jox loo lu wér lay nekk pour nga mën see jëriñ nga dugg ci moom it sëriñ bi na la doy na la doy bu la doy man li ma bëgg man li ma bëgg man li ma bëgg. Mhm. mooy ñi nga xamante dañuy taxaw naan ay borom jinne dañoo yor ay jinne man dama bëgg ñu teel ma man ak ñoom télé képp ku fi génn jinne ma taal si jinne ñu defal leen ay pare naa ko képp koo xamante ne gëm nga nga jinne mhm. soo génn si jinne fi nga toog ma taal taal si jinne man maa ak man wax nga lu rëy de amuñ jinne ay soixante nangam jinne soixante fan lañ koy jëlee gars yi ñeme nga leen ak seen jinne yi ñu boole leen ma la amuñ jinne man li ma la xam naa ko amuñ jinne koo ci mën a mën ay quatre-vingts nangam jinne soixante nangam jinne onze jinne jinne dafa nekk loo xamante ni da kii ñun dañoo sàkku jinne ñun ñu am ko defee a fóot jinne yàlla baax na xam naa jomb euh, loolu moo gën a fóot jinne lu la mos a defal benn plateau yàgg yàlla loolu kese laa yàkkamti jërëjëf ñu kenn si amul jinne <laughs> jërëjëf aja tàggatoo waaw tàggatoo bi du dara lu sant leen di leen gërëm rek di leen ñaanal yàlla seen site bii nii

li yàlla wax ne képp ku ma doyloo rek ma méngale ak say mbir. ñoom ñoo lañ doyloo waaye tamit ba léegi ba léegi tamit du dox parce que wakkul dafa am ak te tawakkul mooy ki nga xamante tawakkul mooy ki nga xamante ni ma ne man feebar naa du dem faju ji damay damay damay damay xaar yàlla mu faj ma déedéet yàlla waxul la loolu tawakkul bi nag mooy sabab bi yaa ngi dégg gëm nga ko ba pare loolu am na mais dama def sabab bi pour nga mën a pour nga mën a tane kon maa ngi ñaan yàlla nga xamante ni mooy Sénégal bii nii nga xam suñu dëkk. Mm-hmm. yàlla ñu seel defal tawfiq ak taysir lépp loo xamante ni président Macky Sall bëgg na ko ci réew mi mhm. yàlla na ko ko yàlla defal parce que ndamam mooy suñu ndam ñun mhm. waaw parce que nag mënoo nekk ci gaal gaal gi di daw nga ñaan nga gaal gi suux parce que gaal gi suuxee da ngay suux waaw loolu daal mooy suma kàddu yu mujj di leen sant leen gërëm wa axiru daawana alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu